alors Baye Niass bu fekkee mën nga ñu ñëw alors euh, de manière un peu plus euh, euh, large lan mooy l'association des éclaireurs c'est-à-dire vous êtes dans quoi vous faites quoi exactement ci lan ngeen nekk. merci Pathé. Mhm. l'association des éclaireuses et éclaireurs du Sénégal. benn mhm. association bi nga xam ne la day yar ay xale. Mhm. ñu fondé ko en 1937 ici au 37 ici au Sénégal euh, en même temps aussi day inspiré aussi li ñu naan but ak ay principe ak li ñu naan benn objectif mmh. au niveau du scoutisme mondial mhm. euh, xale yi nekk ci jigéen ak góor mag mhm. at ndaw mhm. ni ñu koy waxee mhm. euh, mag ñi nag ñoo ñu jiital mhm. di ñu orienté euh, y aussi des responsable encadreurs yi nga xam ne aussi ñooy euh, nekk ci dans les unités mooy des dans les groupes scouts donc ñuy débattre ñuy encadrer xale yi ci ay thèmes comme éducation à la vie familiale la santé y aussi l'éducation à l'environnement l'éducation à la paix, l'hygiène, la culture, mais surtout l'éducation à la citoyenneté. Hmm. d'accord dafa am benn ci yi nga wax boo xamee ne que déjà sax dafa am importance que ñu ciy bàyyi xel ci jamono bi muy l'éducation à la paix mbay maa xam nga ne euh, maanaam dund ak nit ñi ci jàmm sax. am na attitude boo war a adapté maanaam boo xamee ne que moom lañ la war a moom lañ la war a war a former mm. pour pour pour pour pour au moins nga nekk une personne boo xamee ne que doo doo heurter conscience euh, nga nekk une personne boo xamee ne que doo atteindre donc la sensibilité de x ou bien y personne donc yooyu c'est des détails yoo xamee ne que lu am am am importance la donc euh, euh, tey jii bu ñu mënoon ñëw un peu ci alors le rapport entre l'association des éclaireurs du Sénégal ak les scouts c'est c'est en réalité mm. l'association des éclaireuses éclaireurs du Sénégal mm. donc Ousmane Thiané Sarr moo ko fi indi mm-hmm. donc tout c'est on l'appelle le mm-hmm. donc mouvement de la jeunesse la buy éduquer les les les les enfants mm-hmm. donc bu ñu ko indee fii nag Ousmane Thiané donc da koy indi ci base les français donc bu ñu koy indee ci base éclaireuse et éclaireur da koy indee euh, c'est la même chose scout un scout euh, at éclaireur éclaireur du Sénégal c'est la mm-hmm. même chose mm-hmm. amul benn différence bu ci am mm-hmm. kenn moo ko créé ñu naan ko Lord Robert Stephen ci Miss baden officier anglais la bi nga xam ne doon dox ci éducation bi mu génnee gis ne am na ay jeunes yi nga xam ne war na leen mën a jàppale si yenn thèmes yi nga xam ne mën nañ ko aborder. Mhm. pour créer benn monde meilleur. d'accord mais mais euh, Bagnès est-ce que mosuñu leen mosuñu leen wax en fait seen seen seen euh, seen coolka gi ah parce que seetlu nañ ne fu ñuy fu ngeen di dem. Mhm. bu ngeen ni bu ngeen di bouger sax loolu loolu moom ngeen ni sol pourquoi écharpe bi ak euh, chaque jour donc euh, stylo yëre bii nii kese ngeen ngeen ngeen di sol. je pense que la réponse est simple. Ah. donc tey jii minitaire buy demi guerre lu muy sol. uniforme lay sol c'est donc c'est la même chose. donc ah. tey jii pour ñu ràññee ñu. Mhm. Euh, dañu am suñu naan li ñu naan uniforme. Mhm. donc cette uniforme c'est en bleu ciel. Euh, tubéy bi nekk bleu marine. Mhm. donc foulard bi identité de branche la lay wone. d'accord donc tey jii nii soo ñëwee ci groupe bi di nga xam ne ñi ñooy branche qui sont âgés de six à douze ans. Mhm. les enfants donc ñu naan leen euh, les caat. Mhm. ñenn ñi aussi nekk ci branche douze à dix huit ans. donc ñoom caat yi déjà ñoom seen branche day nekk lu ñu naan mauve at at jaune. donc loolu identité tey jii man. mauve la sol at bande bu rouge donc loolu nekk ci branche des responsables donc après xale yi am na aussi beneen branche de douze ans à dix huit ans de plus mhm. ñu euh, de douze ans à dix huit ans ñu naan leen la branche verte mhm. donc ñooñu ay age boobu noonu dañuy gis ne xale bi dynamisme lay lay lay donc day faral di bëgg day am cawarte def mhm. yenn yi moo tax y a certaines activités yi nga xam ne c'est espécifier à cette tranche d'âge mhm. donc de dix-huit ans de plus y a aussi beneen tranche d'âge bi nga xam ne aussi mhm. ñoom euh, couleur blanche la ñuy nekk mauve blanche donc foofu la ñuy aspirer à être des responsables on les forme sur certains thèmes comme l'entrepreneuriat euh, sur euh, le leadership ainsi de suite donc foofu dañ leen jàngal ñoom nan lañ mën a def ba être nekk ay citoyen modèle mhm. et autonome aussi d'accord solidaire mhm. euh, ñu leen jàngal aussi ñuy nekk ñuy engagé wu si yenn activité yi nga xam ne da leen permettre ñu mën a participer si développement euh, seen localité d'accord alors déjà euh, dafa mel ni que au niveau mondial am na ay activités yu nga xamee ne que ça da ngeen koy faral di amal cest à dëkk bu nga xamee ne am na euh, euh, démembrement wu association des éclaireurs donc éclaireuses du Sénégal sinon du monde donc am na activité yu nga xam ne dañ koy amal donc en synchronisation donc dans le monde cest à même au même bu muy xew Sénégal moment lay xew en un peu partout donc ci yeneen dëkk yi nga xam ne am na donc est-ce que mën nga revenir déjà ci activité yu nga xamee ne que mooy activité buy connecté donc euh, euh, euh, yéen seen réseau bi un peu partout au Sénégal sinon dans le monde. bon déjà euh, si week bii ñuy ñëw. Mhm. dañu am lu ñu naan Joti Jota. mais mais j'entends souvent parler de Joti Jota. Joti Jota c'est seulement encore euh, benn jàmboore. Mhm. chez nous quand on parle de jàmboore. Mhm. c'est un grand campement. grand campement mooy euh, tey jii nii euh, benn camp mooy am si euh, buy regrouper toutes les scouts du monde d'horizons divers donc suñ nekkee dañuy développer ay thèmes yi nga xam ne nii dañuy permettre ñu gën a xamante donc tey nag ñu war a def ci weekend bii lu ñu naan joti jota joti jota suñ ko soo ko déggee jàmboore la bi nga xam ne la jota c'est dans euh, sur la radio c'est-à-dire sur les ondes xale yi dañuy toog partout euh, dans le monde si yenn euh, unité ñuy waxtaan via la radio ñuy def ay échanges des jeux aussi des thèmes yi ñuy sur la euh, l'éducation à la paix D'accord. et à la citoyenneté ainsi de suite mm le Joti c'est aussi mm-hmm. benn jàmboore bi nga xam ne aussi day am ci internet bi mm-hmm. donc en somme le jotaa Joti mhm. c'est une rencontre mhm. euh, scout mhm. partout dans le monde bi nga xam ne dañuy regrouper wu via la radio et sur l'internet et sur internet genre moom lañ daan faral di wax bi ñu nekkee gën a nekk xale euh, euh, euh, feu de camp mbay ñu ngi fàttaliku feu de camp nga jig saay donc gars yi yóbbu la benn une semaine ci àll bi xam nga donc comme lañ daan wax bon traditionnellement moom lañ ñu daan wax lël na daan dem ci ñublu ci àll bi pendant un bon temps inclure au delà du fait ñuy wax affaire de xarafal la ci demee noonu c'est am na yenn ci ay valeur yu ñu la inculqué xam nga donc ay si bi lu am solo la ci niñ koy doxalee ak niñ koy defee mhm. wante li ma ci bëggoon a euh, xam ndax ñoo yéen di ngeen def ay gëstu mhm. ba xam euh, maanaam ndax réew mu ne ak ni nga xamante ni noonu la ko suñu borom mooñee euh, ndax di nga def ay gëstu xool maanaam yéen seen réew naka lan daan loofooree ndaw ñi nga xam ne ay tuut tànk la doon maanaam loofoor mooy forme euh, mooy formé ak naka lan daan yare ak yan loyaan man yan yan stratégie lan daan teg ngir yar xale bu toll ci at sàngam at sàngam at sàngam ba keroog muy nekk waxambaane mbaa muy nekk njagamaar euh, ndax yéen a ngi def gëstu yooyu mu méngoo ak sunu te yooyu da daan méngoo ak sunu mbatit muy culture méngoo ak sunuy baax moom la naan aada méngoo ak sunu cosaan ak sunu mboor ndax loolu yéen a ngi ciy def ay gëstu ndax bu fekkente ne xale yi nekk ci réew mi dañ leen yar yarab tugal mm-hmm. sunu màggee tamit doxinu tugal bi ki euh, maanaam euh, fi ñuy référé wu mm-hmm. Ah, waaw ab anglais lan wax moo ko créé ak yooyu waaw ah, ah. merci euh, pour cette question mm-hmm. yi nga xam ne c'est très important mm-hmm. parce que tey jii scoutisme euh, bi mu duggee Sénégal euh, Ousmane Thiané Sarr moo ko dugal mu nekk Saint-Louisien mm-hmm. sama maam la waaw déjà noir moo ko fi dugal te bi mu ko dugalee dafa gëstu avant mu koy dugal même dafa gëstu. si mhm. yi nga xam ne nii euh, dëkk bi noonu la toogee donc déjà ñun si biir association bi yaa a principe principes mhm. ñu naan devoir envers Dieu mhm. devoir envers d'autrui et devoir envers soi donc si dans nos activité yi nga xam ne dañ koy def yàlla a le devoir envers soi lépp li nga xam ne yow da war muy euh, si sa dund ak tamit lépp li nga xam ne danga nga ko war a def pour euh, si sa si sa si sa sa àdduna dañ la kay dañ la kay cërale mhm. ak tamit lu ñu naan devoir envers d'autrui mooy lépp li la war si at nit ñi da nga koy matale donc tey jii nii soo ñëwee suñu culture ñu naan nit ki da nga war a respecter say say moroom mhm. da nga war a jox cër say say dëkkandoo mhm. loolu tout est inscrit dans l'escoutisme mais en même temps devoir envers Dieu devoir envoyer Dieu mooy tey jii nii heure julli suñ demee exemple ñu naan camp comme sànq li nga te paate mm-hmm. suñ demee si camp heure julli si jotee dañuy dem julli mm-hmm. heure euh, def activité si jotee dañuy dem def activité parce que si biir mm-hmm. on fait des sessions religieuses c'est-à-dire tey jii dañuy toog des fois dans les camps benn imam ñëw def une session comme cours session mooy cours def benn cours bi nga xam ne nii sa euh, ça parle sur euh, nan la ñuy def wala nan la ñuy jàppoo nan la ñuy xamee nan lañ lan mooy suñu religion mhm. ainsi de suite yooyu yëpp dañ koy développer mhm. au delà de ça aussi euh, li nga xam ne aussi mooy suñu dëkk ni muy doxee mhm. donc li tax parents yi gën ñu jox confiance mooy chaque jour xale bi si ñëwee am na lenn li muy jàng li nga xam ne am changement mm-hmm. bi nga xam ne nii da koy permettre fi mu mënti taxaw mm-hmm. dañ koy seppi mm-hmm. donc cela veut dire que am na yenn valeur comme solidarité comme aussi entre être bi ñuy dund par patrouille des fois nga gis leen ñu dox des fois les militaires vous les voyez en patrouille ñuy dox en patrouille pourquoi ñuy nekk en patrouille parce que dañuy dund Euh, ensemble mm-hmm. day am lu ñu naan solidarité kii sont des valeurs yi nga xam ne nii mm-hmm. suñu ay maam jàngal nañu ko mm-hmm. qui est inscrit dans ce mouvement aussi euh, yeneen yi nga xam ne aussi dañ lay jàngal yow euh, ni nga war di lekkee seen kër ni nga war ni nga cër yi nga war a jox say parents yenn solin yi aussi dañ siy ñëw tout donc y tout surtout lépp li nga xam ne nii mhm. éducation la euh, yi suñu maam yi bàyyi woon mhm. c'est inscrit dans l'association des éclaireuses éclaireurs du Sénégal macha allah c'est inscrit dans des éclaireuses éclaireurs allah euh, Pathé tey ñu ngi bu baax a baax Euh, am na solo loolu ndax euh, man mbiru ndaw daf hmm. boo bëggee tabax. réew fa ngay commencé de. waaw ba boo ko déggee ñoom am na catégorie bu ne. Hmm. am nañ catégorie bu ne tey am na euh, xale yi am na ñoo xamante ni carrément ñoo toll ci waxambaane yi. Hmm. am na nag ak borom kër yi. mais est-ce que tey lu jëm ci état bi wala lu jëm ci gouvernement bi surtout ministre de la jeunesse est-ce que tey mu ngi leen di accompagner wala mu ngi leen di suivre. est tey mu ngi am benn relation benn nemmeeku boo xamante ni mm-hmm. mu ngi koy def ak yéen ci seen activité est tey ñoom ñu ngi ciy ñëw di ci jàpp pour di leen gën a ñaax ndax euh, ndaw bu nekkee cim réew mm-hmm. di góorgóorlu di tàggat ay ndaw dafay baax kilifa réew mi wala ñim ca teg ca euh, secteur boobu mm-hmm. ñu jóg jàppale ñooñu est-ce que loolu mu ngi am waaw d'abord je dis que l'association euh, dafa nekk association bi nga xam ne c'est apolitique donc chaque jour euh, suñu ay activités ni ñu koy defee. Mhm. donc déjà y a nos moyens à bord yi nga xam ne moom la ñuy utiliser. Mhm. mais n'empêche euh, chaque année euh, euh, aussi ay jàppale yi nga xam ne aussi dañ koy recevoir si si si si si état bi. Mhm. donc leneen aussi am na ñun si suñu association aussi on est on est autonome. c'est-à-dire euh, am nañ lu ñu naan ONG. jeunesse et développement bi nga xam ne aussi day jàppale ndaw yi si yenn liggéey yi nga xam ne bëgg nañ ko mm. en même temps aussi euh, on est en partenariat au niveau mondial si dootu scouts yi nga xam ne aussi des fois dañuy rencontrer yenn ak dañ leen di rencontrer dans des activités mm. qui nous aident aussi à pouvoir dérouler nos activités comme il le faut n'empêche hmm. que aussi dimbal du doy hmm. leneen yow yaa koy yaa koy jëli hmm. donc c'est comme ça que nous mais ci côté encadrement ndax waxewuma côté financièrement mais côté encadrement ndax tamit ci biir réew mi ngeen di ne activités yu bëri ngeen di def soxla ngeen autorisation soxla ngeen tey jii ñu encadrer soxla ngeen leen tey mu ngi noonu sécurité est-ce que jamono ci côté yooyu ñoom ñu ngi leen di nemmeeku ndax kilifa day nemmeeku njabootam te ci njabootu ministre de la jeunesse ngeen bokk Mm-hmm. bien sûr mm-hmm. euh, dañuy nemmeeku mm-hmm. parce que tey jii nii ñun dañu rattaché wu déjà si dans les communes Donc dans les communes il y a ce qu'on appelle les conseils communaux de la jeunesse voilà. et chaque conseil communal de la jeunesse mmh. y inscrit les éclaireurs mmh. euh, du Sénégal en même temps aussi au niveau départemental euh, en même temps régional mm et au niveau national cest à au niveau du conseil national de la mhm. jeunesse mhm. les éclaireurs aussi am nañ si li ñu naan représentant mhm. donc tey jii nii lépp li nga xam ne dafa jóge si état jugee ci ndimbal ñun foofu lañ koy jotee parce que foofu la ñu bokk ñooñu ñooy représenté li nga xam ne nii ñooy euh, lépp luy ndaw ak lépp li nga xam ne aussi mhm. ndaw yi dañ koy dañ koy jot donc lépp li nga xam ne aussi état jox na ko mu wàcc si au niveau du conseil national de la jeunesse mhm. les éclaireurs en font partie aussi d'accord mais aussi bëggoon naa bëggoon naa Salma su fekkee mën na nekk rek donc que l'on essaie de revenir un peu si euh, euh, maanaam les principes de base yi nga xamee ne que alors moom la association bi bi bi tegu alors wax nga tout à l'heure donc le devoir de de de de de soi c'est ça ouais. ok le devoir en Dieu et le devoir donc euh, d'autrui donc yooyu yëpp c'est des choses yoo xam ne lu am importance la mais déjà euh, man dama am dama am benn seetlu boo xamee na mu ko def hmm. ci ñenn ñi ma xam ou bien ñi ma yàgg xam ñu nekk ci ci association bi la moom mooy alors activités yi ngeen di def le plus souvent c'est comme si alors c'est réservé à benn frange donc de de de de, de personnes c'est-à-dire du ñu gis massification en quelque sorti ci seen ci seen ci seen ay activités donc pour pourquoi loolu benn ñaareelu mooy condition d'adhésion yi ci association bi c'est lan ak lan la il faut quoi ou bien il faut être comment. encore Pathé. <laughs> Euh, c'est important important. Mm -hmm. parce que tey jii dañu nekk si Euh, monde bi nga xam ne nii c'est un peu difficile à regrouper les gens sur des choses qui sont utiles mm-hmm. parce que tey ji nga woote kërti kërti moo gën a gaaw mm-hmm. ah, <laughs> nga woote li nga xam ne nii mm-hmm. c'est c'est c'est sa tête à être autonome dans la vie sa tête à t'orienter ça tête à être un citoyen modèle ainsi de suite dans tous les coins c'est pas seulement les éclaireuses éclaireurs du Sénégal mm-hmm. presque on voit tous ces genres d'associations qui euh, je peux dire qui loge dans ce domaine. dañuy faral di am. voilà nga baal ma de mais boo continuer en français nii. Ah ah. kii moo la yow ak wolof nga wala. <laughs> bon ok fi mu tudd <laughs> dañuy soo xoolee euh, ñëpp ñi nga xam ne dañuy loger wu dañuy nekk ci domaine boobu. Mhm. Euh, même problème bi dañuy ñuy rencontrer mais n'empêche. toujours suñu ay activité mhm. euh, dañ koy continuer mhm. ci même sens bi ci même logique bi on en profite aussi mhm. comme vous l'avez euh, souligné mhm. dañ siy profiter wu inviter les jeunes mhm. à adhérer au niveau des euh, de l'association des éclaireuses éclaireurs du Sénégal parce que du lenn lu rut yar du lenn lu euh, ay comportement yi ñu lay may yi nga xam ne dina la permettre nga créer un monde meilleur mhm. créer li nga xam ne nii tey jii Sénégal dina si jëriñu mhm. euh, keneen ak keneen dina si critère d'adhésion yi se passe nii rek am envie ñëw adhérer wala <laughs> rek bokk man fi <laughs> am critère d'adhésion bu zone ba laay am wala bu moof bi <laughs> bon critère d'adhésion bi je vais pas parler si benn tranche d'âge bi rek parce que tey jii xale dina la gis mhm. ngay def leen déjà on nous dañuy woy rek. des fois xale yi dinañ la gis waaw waaw bëri na de. waaw am naa si benn xarit ñu wax Issa Issa Diagne. <laughs> ah Rufisque Issa maa ngi koy nuyu sax au passage. moom sax moom moom yaakaar naa scoutisme gii nii moo tax Issa xaw am benn ouverture bii sax quoi. xam nga moom ah. moom vraiment. bu ñu gënee nekk booy. il était il était fermé quoi. mais hmm. léegi. fa am ouverture xam nga wax ak nit ñi gauche droite xam nga et puis c'est personne très engagée donc ci dimension citoyenne bi. d'accord pour ah. terminer. waaw ci ci ci critères yi. bon critères yi du lenn du tey jii xale bi nga xam ne nii dafa bëgg. Mm. mu gis la gis ay éclaireur romb mu gis ambiance day bëgg a dugg. Mm. Mm. léegi kooku adhésion c'est seulement ça nécessite lu ñu naan autorisation parentale parce que on est bien structuré aussi. am na yenn yi nga xam ne on le fait pas xale bu bëgg bokk su ñëwee gisuñu dañuy def la tout ba téye ko ci loxoom. dem ba mm. ay waajuram toog at moom waxtaan at moom expliquer la ko lan mooy éclair éclaireur. Mm-hmm. une fois que ñu def ko dañuy am benn fiche bi nga xam ne xale bi da koy remplir. dañ dañ koy jox mu yóbbu ko ci ay parents mm-hmm. su ko remplir dañuy permettre ñun ñi nga xam ne ñun ñooy suivre euh, progression. personnelu xale bi mm-hmm. ñu xool nan lañ mën a def euh, ba yenn yi nga xam ne parent bi des fois da koy souligner mu ñëw ne la sama doom de mm-hmm. ah lii lay def su nekkee kër ga lii yow nga yow nga noté exemple mm-hmm. mu ñëw ne la ah sama doom de des fois euh, exemple ñaanuñ ko mu ne dafa am yenn maladie wala day crise ainsi de suite loolu c'est à tenir compte dañ am suñu fiche d'adhésion yi nga xam ne dañ koy jox xale bi une fois que ñu jox ko ko dañuy permettre

catégorie yi du bokk c'est-à-dire li nga xam ne lañ koy jox comme formation mm. c'est différent par rapport ak ki nga xam ne xale bi la adhésion yi loolu rek la soo ñëwee après ñu jox la mm. sa uniforme xam naa kon mbay dina ñëw après macha allah euh, uniforme bi ça se vend <laughs> une forme oui ça se vend. d'accord d'accord mais merci beaucoup. déjà euh, euh, Salma mhm. donc moom boo ko xoolee ni muy waxtaanee ak ñun rek nga xam ne c'est une personne bien ah, éduquée. ah donc euh, moom dafay refléter li muy wax quoi ah, dafa yaru wute ah, na ak man. ak man mi di ñamax ñamax rek. xam nga donc déjà merci beaucoup ñu ngi bég bu baax a baax ci dalaloon la ci rubrique bi ci plateau Petit Déj. Mhm. di jaajëfal aussi ñi nga xam ne que ñu ngi ñuy bàyyi xel donc sa mbokk scout yi sinon euh, éclaireur donc du Sénégal sinon mhm.